wa nabiyina muhammadin al-makin wa ala alihi wa sahabatihi wa xayri xadimihi wa ummatihi ajmain mbokk jullit yi mbokk taalibe yi mbokki yéen association takku ci jiital soxna maam Yacine Sène ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax di leen ndokkeel di leen baalu àq ci weer wu wii léppam di ngëneel di shahru Ramadan di weeru koor di ñaan sunu boroom nangul lu ci li mu bëgg am ko ci muy ragal yàlla bam ne yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laalakum tattaqun kon ragal yàlla mooy xëdëfu weer wi yàlla ko ci yàlla boole defal mu ngi ñaan mu julli te sërmal ci sangu mi def yépp sayyiduna muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam yàlla def salaatoo salaamu ci moom def ko ci njabootu boppam def ko ci ay àndandoom def ko ci liggéeykatam bi nu yàlla booleel Mawlana Cheikhul Khadim ak képp kuy topp seen yoon ba keroog bis bay taxaw ñu ngi nuyu waa Mbuur gépp di nuyu kilifa diine yi ñu fi fekk yépp ci kër yu wuute ci gox yu wuute ko dañu lay jox cër bi la yàlla jox di nuyu seen jataay bi nag te di leen ñaanal ndax Pastef rek la wane takku nekk benn képp la wane bëgg lu baax ak bëgg seen gox la wane yàlla yàlla gën leen a dooleel gën leen a taxawu ak tawféexam gën leen a jàppale jaare ko ci seen njiit lu baax li maam Yaasin seen waaye di nuyu Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye nga xam ni su ma am lanteeg maam Yaasin ba defal leen conférence ci moom la sababoo mu xam ma di sama soppe xam na ci kër sëñ Abdul Karim mu sëñ Fallou xam suñu relation bi mu déggee maam Yaasin am yitte yi ma defal leen conférence mu jokkale ci anam bu rafet sonn ci lool def ko yëfi boppam yàlla ko yàlla fay yiiw ñu ngi leen di yóbbante nuyoo ci sëñ Abdul Karim Fadilu li nga xam ni lu jamono ji gën a dox nit ñi di ko gën a découvrir ngir jikko yu rafet yi mu woote da koy dund muy makaarimul axlaaq waaye nag muy fajkatu aajo boo xam ne ku dem ma fajal sa aajo yàlla ko fi yàlla yàggal te doon ko wér ñaanalee magam sëriñ abool baraka mii sëñ Fallu ñaanal sëriñ Muntaxa Bachir mii sëriñ Touba ak mboolem xolafaaw yi ci këru diine yépp yàlla yàlla dëgëral leen te yàggal seen taxawaay yàggal seen woote ñu ngi nuyu kilifa gu tedd gii nu fi fekk muy imam ratib sëriñ Sidi Diop xam nga njabootu islaam fu ñu daje imam bi njiit li loolu la yàlla digle ba bis pénc ba sax bu ñu fay dem ku rek da lay àtte ci sa imam kuréel bu ñëw yawma nad'u kulla unaasin bi imaamihim kon ku rek ci sa imam muy imaamu bërëb bi imam ratib bi yàlla na yàlla dëgëral te yàkkal ko ci kanamu njaboot gi te defal ko ngëneel yu yaatoo yaatu bi barakati shahri ramadan nu koy ziyaara bu baax di ko ndokkeel ci jataayam di nuyu sëtu maam Adama Guèye biñ ci fekk muy kilifa di suñu soppee léegi lañ koy présenté sëtu sëñ Magay Jamala mi nga xam ne mooy taawu maam Adama Guèye maamam jooju moo njëkk gane àdduna ci bi sëñ Tuubaa sàncee Tuubaa 1888 boo ko njëkk a fekk di bi di door gis dëkkam bu tedd bii ko yàlla tànnal te ñëpp di fa dem tey bi mu koy jëkk a gis mooy doomu seex bi ko njëkk a feeñ sa maam maamam tam di maam Adama Gueye moo njëkk a def mu baayam mooy jébbal ci sëriñ Touba bi bi amee ndigalu boromam jaar ko ci yenant bi sallallahu taala alayhi mu jox ko ndigalu taxawal al muridiya mu yoonu murid mu taxawal ko ci weer wi ñu nekk muy weeru koor waaw kay honorable député ñu dalal quoi Ajaratu Yacine Ndao nous souhaitons la bienvenue à Ajaratu Yacine Ndao honorable député qui est venu accompagner d'une forte délégation pour honorer notre journée. jërëjëf jërëjëf Ndao jërëjëf Ndao ma wax ni maam Adama Gueye moo njëkk a ci Serigne Touba. keroog bi sëriñ bi amee ndigalu boroomam jaar ko ci gën ji mindeef yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu jox ko yoonam mu jox ko yoonam di yoonu murid ci Mbàkke Kajoor ci weeru koor comme nii ñu nekk rek weeru koor ci la sëñ Tuubaa taxawal yoonu murid ñaar fukki fan yi ak juróom-ñaar bis àjjuma fekk ñu laylatul xadri ba ci ëllëg si sëriñ bi wax waxam bi siiw gi nga xam ni ñi gëstu yoonu murit ñépp jàng nañ saafaxani rasulullah bi qawlihi rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi tarsifaxa yanant bi wax naag man tuñ ak tuñ ni ma yow Ahmadou Bamba yaral njaboot gi fi ñëw ci yow ci yitte wuti ngërëmu yàlla seen borom waaye bu ñu yemate ci jàngu kese loolu nag jam lay faram fàcceel daal bi daa am ñu ëppal ñu mel ni man ñu koy yàq di ko firee neneen déedéet sëñ bi terewul jàng ndax jàng fondement lépp yàlla li mu njëkk a yónni ndawam wax ko Jibril wax ko yenant bi mooy iqra iqra la ko wax bis bi rabbikal lazi xalaq xalaqal insaana min alaq اقرا ربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما yang يعلم داكو جاكلو يانت بي نيكو ما انا بقارئ من بوكول في سما فورماسيون جانغ ci jaamu ci école man te lire lu ko jaaxal la mu ne ko jàngal ci sa turu borom doomu aadama léppam jàng la moo tax yanant bi raw ñëpp wax ni mahdi lahdi mahdi lahdi bi nga ganee adduna ba keroog ngay dugg sa bàmmeel da ngaa war di jàng ba ci moom mi ëpp ñëpp xam-xam yarant bi yàlla dane ko qul rabbi zidni ilma yow yarant bi waxal ma dolli la xam-xam xam-xam du doy kon sëriñ bi yarant bi waxu ko ñu bàyyi jàng déedéet su ma nee sama soxna bul toggati ci kër gi ceebu jën kese waxuma ko bàyyi ceebu bu fi toggati ceebu jën kese mooy dee ko togg ak yeneen plat waaw noonu la noonu la yaram tamit ak seen Tuubaa dane ko bu ñu yem ci jàngoo kese da leen fekk ñu nekk ci jàngu mu kawe mu ne ko bu ñu yem ci loolu kese nañ ci boole waale yitte ndax nit bu jàngoon ba jeexal téere yi te amul yitte ci boroomam du dem fenn kon nañ ci boole yitte ju kawe fas yéenee wut li gën a kawe lépp muy ngërëmu borom sëñ bi nag tàllal loxoom ci maandu te xeebul benn tarifa képp ku ne la murit la day xasub tarixa du dëkk na leer ku ne la tiijaan la di xas ab murit du dëkk bokkul ci benn tarixa bi kon la xaadar la di xas laa yéen du dëkk te dee yàlla rek a fi nekk te moo sàkk ñëpp te yarant bi la gënal te ñoom ñëpp yarant bi leen jox mbiram kon loolu xas kenn ndax yarant dañ bi waxul ñu bàyyi kenn dañi tarixa bu waaye doyloo ba jël ko dana am ngërëmu yàlla am ngërëmu boromam ag ci àggukaay bi fek mo ngi sel ya sëñ Tuubaa bi ni mo xam nak nga jële ko ci Cheikh Ahmadou tidiani wala Cheikh Abdoul Khadir jilani wala kudul ñaar ñooñu sax ci mbolé nitu yalla yi ndax yàlla daa yàlla moom sax boole gëdd la pour wat pour yaatal moo tax amoo droit ni li rek do ba doy damay saagale ci dess ku koy def dofu sëñ bi dimi wote manu ci la wote lii ma woo li ma yaram ci bi doy ñëwal ku mu man ngaa dem jàngi feneen bi mu ko waxee sa maam maam Adama Gueye moo njëkk a loolu la yàlla dogal yoonu murid di muy rëy njëkk a jébal gi sëñ Tuubaa ndam yoon bu am ay ci njëkk di premier kenn du boo ko xàmmee na kenn ci guddi moo njëkk a sukk ni sëñ Tuubaa aslam nafsi lillahi jébbal naa la sama bopp ngir yàlla la sëñ bi nangul ko mu def ko baayam ajjuma la sëñ Tuubaa woote ajjuma la gëm sëñ Tuubaa naam Adama ka ca topp mooy sëñ Ibrahima Sarr Njaañ Saam ñett ñii ñoo njëkk a ci sëñ Tuubaa vendredi ci ëllëg sa samedi sëñ Daam Abdourahmane Lo topp ba ko daan alxuraan sëñ Mouhamadou Gaye Jamooy topp ci sëñ Daaru Xasan Ndiaye topp ci sëñ Ahmadou Fa Jabañang mooy septième topp ji sëñ Mandoumbe Xabaar di huitième topp ji sëñ Mbàkke Bousso di neuvième topp ji sëñ Mor Ndiaye Tàggaar di dixième topp ji nii la mooy cosaanu yoonu mooy kon nu lay siyaar bu baax ngay dina jox cër bi la yàlla jox damay bañ a accaparer ndax thème ba bëgguma ci te nuyoo gu ma sax yow laa doon jagleel ab nuyoo rek euh, waaye sa maam yaakaar naa mën naa ci waxtaan guddi ba mu jeex te du ma laal yaakaar naa ak mu jot dañ ma fekk ci mu xat place ma defal leen conférence ci moom yéen a koy taxawal foofu kon nu ngi lay siyaar Guèye di la ndokkeel di nuyu mbokk yi fi teew yëpp yëpp bàyyi ma kenn mag ndaw góor jigéen tënk na ñëpp ngeen bëgg nu traité thème bu am solo muy taxawaayu jigéen ci lislaam diine ji ñu bokk ak ci société bii ñu dëkk bi di dund te yi ñoo seq jigéen ni muy nekkee ci biir bi am environnement waaye nag mu dëppale ko jàngale islaam muy lu am solo li ma leen di njëkk a wax mooy islaam moo leen valoriser yéen jigéen ndax bien avant l'islam di ñëw dañoo jàppe am doom bu jigéen gàtte ba yàlla nettali ko ci alxuraan ndax alxuraan moom mooy dellukaay لما واخ رك لولا مير لا يالا نينا في سوره النحل واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسك على الكون ام يقصه في تراب على ساعة ما يحكمون في سوره النحل يالا نينا bari wa na ko tok ci penki wala mu tok ci grand place di waxtan ak moroma ndaw ñëw ni ko sa jabar accouché na am na doom nee na mu xool ko ni ko lu mu am yàlla nekk nee mu ni ko doom bu jigéen nee na yàlla nee na waa ji daal di découragé gàññi kanam gi kanam gi lëndëm mu mer ba futt ndax doom bi jigéen ji ma yàlla mi nekk bari waa na wax sa jabar am na doom mu ni doom ju lan la am ñu ni jigéen mo gagné kanam gi ñangal ñu soxna ci jigen la ba andil amna gatte yalla ni yena a ñaaw lu ngeen di àtte ala sa ama yahkum non ñuy atté mo ñaaw ta ta jekkati am doom bi jigéen rek tax ngeen gagné ta man yalla ma mom bir yi su ma defal ko jigen sama nexé defal ko ko kon yàlla moo leen njëkk ka valoriser yalla ni ma mom bir yi su ma neexee defal ko jigéen su ma neexee defal ko góor te li ma dig ku góor ku ma topp loolu laa dig ku jigéen ku ma topp moo tax bu ne innal mu'minina wal mu'minat lay teg wal muslimina wal muslimat lañ lay teg wal xaanitiina wal xaanitaat lay teg wa saa'imiina wa saa'imaat lay teg wa saabiriina wa saabiraat lay teg wal xaafisiina furuujahum waaye wal xaafisaat furuujahunna ñoo yem amul différence jigéen joo xam ni daf maa gëm ak góor gu ma gëm góor gu may topp ak jigéen ju may topp góor guy muñ ak jigéen juy muñ góor guy woor ak jigéen juy woor góor guy goo xam ni dafa sàmm awraam ba du séq ak kudul jabaram ji ko ak jigéen ju téye boppam ba du séq ak kudul jëkkëram ay wa zakirina allah kaseeran wa zakira ak gor gu tudd yalla fa mu ton lu bari ak jigéen koy tudd allah lahu ma'rifatan wa ajran azima allah lu ko tey yalla dit na le yol bu reey ñom gor ñoo ñu jigen ñoo ni top kon fi jigen yam mo fa yam le boppam fi jigen yam mo fa yam le boppam am na jigen ñu baax te yeen jigen ñi yalla joxat na leen benen ci téerin bi di alquran xam nga ban la ginnaaw bi mu leen jaglelee seen saaru bopp muy sóotu nisaa yi te góor ñi amuñu ko góor amul sóotu rijaal yi amu ko mais sóotu nisaa yi rek am ci alxuraan ginnaaw loolu mu tànnaat jigéen ci jox ko saaru boppam tudde ko saar yi sóotu Mariyaama pour jàngal ñu kanay Mariyaama loolu cër bu mu cëral jigéen hmm? loolu cër bu mu cëral jigéen la suratu Maryam mo ngay jangal nak ngir gi minde fi yenent bi sallallahu alaihi wasallam ci alquran motax le dialogue islamo-chrétien war ko gëna tuddal ndax kéro bi julit yi sonné ci màkkatal mukarrama yéefar yi sonal leen parce que dañu dem and ak Muhammad ñu xéxé leen lu nek mënu mënuñoo am solution te yenent bi gaa yaa ngi di ko gëm ñu ngi xëy di ko rek loolu metti leen ñoom yéefar ñu daal leen di embargo dootuñu jaayanteeg ñoom dootuñu jënd ak ñu gëm Muhammad bañ demee ba leen di mettital mu metti yerant bi dafa wax jullit yi dem leen Éthiopie dem leen Éthiopie su ngeen demee le roi Négus mooy buuru chrétien ba fa ne catholique bi mu fat leen ndax seen mbokk lañu Jaafar jiite leen keroog bi ñu ñëwee yéefari jiite jiitu leen fa yàq te waa kër Muhammad tam fii ñëw te ay rebelle lañu dañoo di seen maam yi li ñu gëmoon ca Makka ak seen baay topp benn waa ñuy wax Muhammad dinañ ñëw fii yàq sa règne ba leen accepté buur bi ni déedéet wala guñ ma dara lu ñaaw mënu leen a dàq bàyyi leen bañ ñëw wan ma loo xam ni désordre la waaye gën ñëwee rek fekk yéefari yàq Jaafar jiite leen ñu ñëw nuyu buur bi ni asalaamu aleykum léegi yéefare ni gis ngeen waxoon nañ leen ñoo duñ la sukkal dañu nangu sa nguur gis nga dañ la nuyoo dañoo rëy néegi su laaj yéen ñu ne ko ñun nuyu nañ la nuyu bi gën a civilisé waaye ñaanal leen jàmm waaye sujjóot duñ ko defal nit dafa xaraam mat leeral la da gis kuy attaqué yoonu murit fekk daa amul xam-xam moom yoonu murit deful sujjóot sujjóot li muy def arabal ko tudde taq biirul yat yi fóon loxo la sujjóot nay leer sëñ Tuubaa ni mu toll ci islam du def loo xam ni tegewul njabootam ni nu jànge du ñu def ay yëfi dox kon sujjóot ci julli lañ koy defee juróom-ñaari cëre yi sujjóot lépp nga sujjóotal yàlla borom bee moom sujjóot lu dëkk taqbiilul yaddi fóon loxo moom la murit di def ngir màggal production yàlla yàllaa ñu sàkk artiste bi sax bu defaree benn tableau d'art boo boo rafetalee tableau d'art bi day kontaan artiste laa wax de dafay misaal bu defaree un tableau d'art léeg-léeg nga dem ci tubaab yi gis artiste yu mag ku mel ni Renoir ku mel ni Velázquez ku mel ni Goya ku mel ni Picasso ku mel ni Alessandro Botticelli waaw ku mel ni Paul Klee boo xoolee seen ponkalu artiste Léonard de yi dañuy defar tablo ñu koy apprécier te tableau bi dafa rafet xam-xam bi ci nekk ndax aar may la bu yàlla yàllay may mais bu defaree tableau daal nga apprécier ko moom nga apprécier waaw yàlla nag sàkk jaamam wóolu ne yàllaa ko sàkki forme bu rafet doomu aadama ngir yanamtu créé ko du début à def ci moom loo xam ne kenn mënu ko benn jaam mënta sàkk nit yàlla rek a mën a sàkk nit téye ko juróom-ñeenti weer ci biiru nday indi ko ci àdduna defal ko xam-xam ak xel forme bu rafet nga romb koog ngeen daje nga xam ni doomu aadama la comme yow nga téye loxo mu téye sa loxo ngeen saafonte nga fóon ko ngir màggal yàlla lii bu araamee lépp araam lii doog la mën di def tax biilul yett fóon loxo doomu aadama ngir màggale ko yàlla bi ko sàkk la ñeen moo tax biñ ñeen waa négis ñii duñ la sujjootal jaafar ni sujjóot dafa xaraam duñ ko defal ko dut yàlla nuyu nañ ko nuyu bu civilisé asalaamaaleykum léegi buur bi laaj lii waaw yéen Mouhamed bi ngeen di wax lu mu woote ñu ne ko yeneen la yàllaa ko yónni mu ne waaw moom ndax am na téere bi wàcc ci moom ñu ne waaw alxuraan ndax moom seen yenante bi li yàlla wàcce ci moom wax na dara ci sunu yenantu Isaa Jaafar ne waaw daal di jug taxaw rek jàng sóotu sóotu Mariyaama كيف يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن الأرض مني وأصدع على رأس شيخا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالى من ورائي وكانت امرتي آخر لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعل ربي رضيا يا زكريا إنا نبصرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا ديكو جانغ باغتي واسكول في الكتاب مريم اذن تبزت من انهار مكانا شرقيا فتحزت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتبزل لها بصرا سويا di ko jàng baag ci waatat xaw atat bihi xawmaha tahmiluhu qaalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya ya ukhta aarun ma kaana abuki imra'a sawin wa ma kaanat ummuki baghiya fa asharat bi ilayhi qaalu kayfa nukallimu man kaana fil mahdi sabiyya qaala inni abdullahi ataani al-kitaaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsaani bi salaati wa zakaati ma dumtu hayyan wa barran bi waalidati lam yajalni jabbaaran shaqiyya wa salaamun alayya yawma wulidtu wa yawma amuutu wa yawma uhyaa zaalika ismu maryama qawlul haqqi llazii fiihi yamtaruun buur bi rongoñ bi commencé dox bour bi rongoñam commencé dox mu dal di yoroon benn cure-dent loolu ñu sikorotoo lu melni lolu bo boo ba noppi di ko sikorotoo lu mel non la yor moy cure-dent yi ñi jam ci bët gi lu tuté no anglais naan ko toothpick mom la ni dal ni lim doon jang ci alcorane ji ak liñ ñu andi ci suñu bible wuté bi tollu ni wala dal ko am ngeen hospitalité ci suñu biir kër tok leen ba doyal ku leen laal ñu laal ko lolu chrétien yé ko lebal islam la wax waaye surtout maryama dañu ñu jàng indi lool Mariama jigéen la yalla ni ya maryam inna la stafee wa tahriki wa ala nisaa alamin kon dañ tan yow maryama malaaka yi ne ko yàlla tànn na la sellal la teg la ci kaw jigéen adduna bi yëpp mu am doom te amul borom kër amul jëkkër am yéen moom doomu aadama yàgg na ci lijjanti problème a jàmm loolu moom defe naa bu ko yàlla nettiloo yi noonu la nit ñi bindoo lijjanti yi ci jàmbur rek da ngay gis ko denc ci këram ton di lijjanti sa liibar ton lay denc di lijjanti sa liibar yow waaye léegi problème am na parce que Mariama xëy na am door ci benn journée na ko yàlla créé lool yónni ndawam da koo soufflé nag esprit saint dañ ko ko soufflé waaw ndax bi ndaw li ñëwee rek Mariama comme jigéen ju sell la daa demoon wéet ci jàng bi yaroo ci kibaaru Zakaria ah mu ne ko inni a'uuzu bi rahmaani minka in kunta taqiyya commencé daw nag ki mu gis ne ko Jibril yéen a fa innamaa ana rasuulu rabbi kii yéen a fa lakki xulaaman man kat yàlla am yu ne damaa ñëw ngir déggal la ci nga am doom. Mariyaama ni ko anee anee eh, lii xulaamun walam yamsasnii basarun walam aku baghiya man nu may doom te man du ma mooy te awuma jëkkër góor du ma laal du caaxaan du may doom mu ne ko yàlla nee na bu may jaamam doom ne ko yomb la pour fay bon la jëkkër di doom te doom ji kéemtaan lay doon bu gaa yu ñëwee nag wax mënta ñàkk wax mënta ñàkk waaye ku wax nee ko tey damaa woor ci wax neel ci yàlla man yàlla mi def kéemtaan dinaa la tontu neel ci wax mënta ñàkk loolu yàgg naa am ci pénc mi wax mënta ñàkk liiral benn livre bu ñuy wax les fables de Jean de La Fontaine daf ci jàngale le meunier son fils Elan. Hmm? Le meunier, son fils Elan. jàngiri station kii woom mag mbaamam ak mbaam meeg doom ñu jóge ci tool yi ci mi dikk bëccëg romb pénc mi grand place ñiy toog ci grand place dawal seen bët gis góor gi ak doom gi ñu war ci kaw mbaam mi ñu ni bi laay ñàkk ma gi am ba tey naaj wu tàng wii ñaari konkar waram mbaam dinañ ko rey de mu wàcc ci mbaam mi ni doom dégg nga li gaa yi wax mu ni dégg naa ko bàyyi mu ni nan wàcc léegi ñoom ñaar ñu wàcc mu nañ ko wommat soxnoo ñu wommat mbaam mi rombaat pénc ñu sànniwaat kàddu ci ñoom ni dofa gi am mbaam lu muy jariñ lu dul war ñaari ponkal di dox ci naaj wu wi bàyyi mbaam te war koo ne doom jëg ngaa mu ne waaw mu ne kon léegi waral man ma wom ma doom ji war mu wom ma ñu rombaat mel ni pénc ñu sànneeti baat daal ni gi am ba tey baayam di dox xale bu ndaw bi ndong ci kaw mbaam bàyyi baayam muy dox mu ni dégg mu ngoog ñu wàccaat ne ko léegi doom baal ma waa yow nga dox ñu romb pénc mu daal ni baay góor gi moo ñàkk ne waay bàyyi xale bi dox moom war ci kaw mu ne ko àddunaa ngii lo def dinañu wax lo deful dinañu wax fexel ba yaak yalla nga am esprit tranquille rek moo tax yàlla ni maria bul tont da jël ma salam dañu kel ma la defal kiyam tan man laa tontu moo tax isa ko tontul donc liir bu wax isa moo tontul maria mo ni man ndaw li yàlla la yàllaa ma yoon na la yoon def ma yanam yalla barkel sama mbir yalla ma denk toyaba yiwu da bobu julli ji xewagul waaye salaat day firi yiw lu baax rek te laa ko dégg bu may dund nag nii lay deme samay dee ak samay dee yaay sama yaay bii set na wécc defut lu bon defut lu ñaaw defut jëmale ci ma loolu jigéen a ko def boo ngeen jàngee téere bu ñuy wax nisaawu ahlil janna docteur Moustapha Mourad moo ko bind mu nga def Égypte jàngale na ci jigéeni àjjana yi wutal leen ay royukaay indi na ca mariyaama wax naa leen mbiram indi na ca xadijatu yen ñepp xam ngeen khadija ni mu nekké won khadija mak mustafa magé na ko fukki ak juróom tey ji bu ko kenn defoon ñu naan sa morom doomi ngay dem di seyel ci xadijatu magé na mustafa fukki ak juróom ëpp ko tamit xaaliss fuf ndax moko doole ci alal lëggéeyloo ko nekkoon patronat dem ba gis jikko yu ko doy ci Moustapha mu yónnee labat ko te batal ko boppam ni ko dama lay may sama bopp maa ngi ko fukki at ak juróom jural ko nag doomam yi ku dul Ibrahima rek xadijatoo la jur moo tax am na benn at ma dem Màkka dem mu àllaa ñu yóbbu ma ci seen sëg ak mu àllaa yi keroog ci moom laa waxtaan xadijat ci bàmmeelam laa taxaw waxtaan ci moom xadijat mu dalal yeneen bi yeneen bi jaxas moom mooy lan tàmbalee gis jibril taxawu ko te malaaka du caaxaan waxuma jibril de mikaayel diggante tuñum kawam moom ji mikaayel diggante tuñum kawam ak baxi bakkanam ah, jibril nee na naaw na ko téeméeri at mënu koo jeex mikaayel malaaka du lu caaxaan fi ne yàlla pour yónni malaaka mi ci jibril ci yerant bi da koy jox melo tahiyatul kalbi benn saaba la pour mu ñimee ko di ko bi tàmbalee gis miinu ko nag mu jaxasoo bu ñëwee ci kër gi naan sàmmiloo nii dastiroo nii sàng leen muur leen ma jaxasoo xadijatoo ko dalal ni ko Muhammad xaw ma looy gis ak lu mën a xew waaye yàlla du la rusloo yàlla du la gàcce ndax yow ku bëri yërmande nga ko maanu nga ku jub nga nit dula la wax secret nga wer ko nit dula denk dénk xaalisam dara manqué ci tedd nga yiiw nga moo tax lu mana xew jamale tay nga xamni am nga soxna so bax way bok ko soxna legi de soxna so xamanteni sa jeuker ya koy dogal waaw parce que la muy la muy tawat yaa ko tek da do bàyyi féeg diw parce que bu guddee mo wara nelaw mën na am jabe wala ulcère nga topp bay wax rek donc du tranquilliser jëkkëram boo xam ni moom bu ñëwee ay tàmbali na ah sama moroom yëpp xotti xotti loo ma ana ges net ma la laajoon yow nii rek sàmba alaaw taxawaalu ci mbedd mi rek di jaagar jaagar defoo dara sa kër leen defal boo tëlee xeeb fàttali kon bokkut ak jigéenu léegi nii kii jigéen bi daan dalal jëkkëram borom kër watax maam seydil xaaji maali radiallahu anhu bu wax ci téeréem bu tudd xilaafu zahab mu ne xadiijatun sakanat bil qalbi qailatan lan yuxdika allahu fi daarini la takimi wala xaaji maali ana xadija moo dalal yenant iya bi ni ko yàlla du toroxal mukk na sa xel dal jàmm rek nga yam ànd ak moom yóbbu ko ci mbokkam mu tudd war xatit na nawfal ne ko Muhammad tamay bëgg a jaaxal daa am lu gis Warxa nag ko jàngoon la Warxa ni ko li ngay gis nu mu demee mu ne ko li may gis daal daf may diggal mel ne lu yore laa expliqué ko ba jeexal Warxa daal di muum ne ko léegi waxtu wu muy ñëwati Xadija mii na taxaw sawe na muuru nag comme ni mu baaxoo muuroo su lolu ñëwee na muriku gaaw musóor gi na muriku musóor gi su muree musóor gi nga continuer di gis li nga doon gis su baba shaytan waye su muree musóor gi li nga daan gis daw ah su dapat dafa daw malaika la malaika du gis awra na jigéen te ci awra la bokk <laughs> kon war xaa ko hadi ba mu defee nonu bi yonent bi ngi ni khadija ne ko dem na mu muuruwaat mu ne ko ñëw na mu muree ko mu ne ko daw na ñëw wax ko warxa warxa ni ko zaaki naa muus muusa yow ki ngay gis mooy malaaka mi daan feeñu yonent yàlla muusa di ko xamal yow daal sa borom kër bii su ma bañu te juum yonent bi mujj a feeñ téere yi junjoon ko moom nga toogal nii mooy Muhammad ibnu Abdullah dina woote nag wooteem bi ndawal yàlla la waaye nag aka neexoon buy woote ba waa makk di ko Akan aka neexoon mu fekk ma ci waxambaane ma am doole ma jàppale Muhammad dal di teen xol ne ah dinañ fa génnee mu ne ko waaw li nga yor teen musu ko yor jóox ci say mbokk ta xeexuñu la génne rek kon khadijatu mo dalal mustafa moo tax ci bi teñul di ko waxtaane ba ñew madinatul munawwar 450 km ba gàddaa yee ñëw dëkk fa biir madina Tayba leg leg mu toog sayyidatuna aisha doomi abou bakkar di soxna si mu gënoon ay doom ba mu yàgg ma naan cee xaddi kenn di ko fàttali Aysa ni ko wa sa màgget mi dem ba ci barzakh nga topp wax ci mom rek xana do ko fatte ni ko fatte ko man Moustapha do ngor ci man ndax bima ñepp wété weddee moom gëm bima jaxaso jaxasoo moom bima ñaké bi jox alalam sama doom yi ëpp moo ma ko jural ku dul Ibrahima bi Mariyatul Qibti jur Xadija moo jur kon mu dee ma fàtte ko du ngor ci man Moustapha te yàllaa ma yónni ci koy rafet ah kon Xadijatu bu service jotee service day nangoo nekk jaam jaamu yàlla bu toppaate jotee mu nekk sang bu topp yenante bi du desal dara te loolu yombul fi ne bari na jigéen joo xam ne moo lay labat surtout suñu consort bi xam ni dañoo siiw boole ci di sañse àdduna mu sinu léeg-léeg nga gis jigéen moo lay labat wuti oto sax jëndal la ni la maa lay jutal oto sa yoon nekk fi dama la toog te yàlla tax rek waaye bu ñu duggee bu ngeen tuuti mun néew ma ci yii de kon mu ngi noonu jigéen dafay tranquilliser borom këram di ko dalal ngir xelam dal su wutee am waaye léeg sa sax nga am nattu fekk ci kër gi ko ñaaw ba pare sonal waaw léeg nga am jabar mu ñaaw ba noppi boole ci sonal te ñaaw rek kaaf la ci jigéen wax ci fan doo nelaw guddi lu leen wax la ko day metti da ngay xëy suba rek di jeex nga naan la daal ñu naan ah kii daam léegi jabet maa ngi lay wax benn secret boo xam secret sa ñaara ñiy jabet ñëpp genn wàll lu ci bari stress a ko stress day joxe diabète stress day joxe ulcère day joxe cancer te jigéen day teg góor stress bu ko mayu jàpp am na jigéen ñoo xam ne seen problème mooy kàddu gi la moom la ñuy wax jigéen joo xam ne jigéenu bëy la tudd jigéenu bëy mag ñi jigéenu bëy lañ koy wax mooy koo xam ne mel mel rek te doon am ko xam ne jigéenu ginaar la kër si yàq rek loo indi ci kër gi mu yàq rek gaz bi jeex na yow gaz bi ma jëndoon bërki démb jeex na de xaw ma looy wax noonu waaye boo noppaloo sa facture bi ñëw na cent mille la oh. ah. xale yi seen këyit ñëw na fi dañoo war a fay école bi du la may sax nga noppal kon kooku wax lay def am jigéen joo xam ni problème am mooy da dul wan làmmeñ moom loo wax mu tontu am koo xam ni problème am mooy da dul toog mm. sikki la sikki bu rëy jigéen dul toog wala tabarajna wa qarna fi kunna la yalla wala tabarajna tabarajat tabarajat tabarajal jahiliyatil ula wa aqimna salata zakat ba boobu nu fay wax rek tabaraj sa ba ma moy baraj baraj ya ala tabarajna moy bu len di genn fu ne genn fa pokku dugg wa qarna fi buyuti kunna na ngeen sax ci bir kër di genn day tok wa señ bay jaxate ni jabar dafay yaru tey muñ neexi wax bañ a wex rafet rafet jikko man boppam ne ci néegam soxna ngoo loolu sëñ bay jaxate wax ba muy woy ku ne lan la war a doon dane xarit dalay xaral xarit dalay xaralus lëf ci yëfam ne la am koo xam ni kii du xarus lëf may la doo waayam hmm? nee na sëriñ dalay jariñus yi lëf yor la yàlla bu wér xamal la yàlla garib sàntam di am jaam nee na jëkkër dafay muñ a këy muñ lee ka sàmm ne jabar nag dafay yaru tey mu neexi wax bañ a wex rafet rafet jikko man boppam nekk nii jabar ak kon toog Xadijatu kon daa toogoon lu yarant bi bëgg mu defal ko ba xëy wuy ji boromam yarant bi taxaw mu nga camu àllaa ca lañ borom ah, exemple la ci yéen Sayyidatuna Aïcha nag ngeen ju baax a ngoo tey jii képp ku jógee Makka war a armal ci aj Makka wala fekkee biir Makka masjidu Aïcha ngay waaj turam nekk na ci islam ba faw te Yonent bi nee na na ngeen jàng ci ndaw su weex si seen ñetteel bi ñetteel bi ceeru bi seen un ceeru bi ngeen jàng ci ah kon Yonent bi fonkoon na ko Aïcha am na taw tawfiix ci biir kaayam la yenant bi génne àdduna ci biir néegam ci kaw lalam ci kaw luppi Moustapha ci kaw luppam yi la Moustapha tëdd ba dox sotti bi mu sixoon la ko sex li muy dox tey jii képp ku dem Madina siyaare fi ngay siyaare yenant bi ko nekkoon néegu Sayyidatuna Aïcha aka maanu nag di yenant bi wàccee liggéey ñu rob ko Aïcha dund na ba àgg ci 66 ans ngóor toogul ci lalam ngóor duggul ci néegam dégg li ma wax néeg fi denc yenant bi daana fa dugg di siyaare yenant bi di fa fanaan di dugg ci béréb boobu mu dem ba jëmmi jamono ñu indi fa Seydina Aboubacar Sadiq bàyyi mu wéttale yenant bi mu fay continuer dugg ñu indi fa Omar nangoo turam waaw ñu wax ko mu ni Aboubacar sama bàyyi la sama borom kër la mais Omar mën na maa jël soxna te dem na ba barsax waaye ba tey damay maam ba dañu leen fekk ji ah yooyu beneen affaire la waaw ah, soxna su baax la boobu sëy def naa Aysa xool leen Asiyatu bintu Mazahim xam ngeen Asiya mooy soxna Firawna jëkkëram a gën a bon ci góor ñi góor yi àdduna bépp Firawna ak yées Firawna 640 ans la dund juróom benn téeméeri at ak ñeent fukk mooy ay atam waaw yàgg na fi 400 ans ñeenti téeméeri at yëpp buur la ko doon buur gëléem ko ndaw la daan jogaroo jogaroo am gàttal bopp du metti biir du metti beew ba mu xëy suba ni ana rabbukumul aala man maay seen borom bu mag bi jël place yàlla iblis ni ko yow sànku nga man li may bon bon yàlla damaa digal ma bàyyi ma bañ koo def waaye yow da ngaa beew ba def sa bopp yàlla yow moom yàpp firaaw na mu bon moomu laa wax soxnaan ko baax la Asiyatu bintu Mazahi téere yi nettali na ko yonent bi nee na ëllëg ca aljana sama soxna lay doon baax fa lay te moo taxaw Moussa ba firaaw na mën koo indi ci kër gi jàppe ko doom ba mu rëcc ba daaneel nguuru firaaw te booba sonnoon nañu ndax alxuraan nee na wa iz najaynaakum min aali firawna yasumuunakum suul azab yuzabbihuuna abnaakum wa yastahyiuna nisaakum wa fi zaalikum balaa waaye Asiya bu baax moo moo tax Moussa réussir xool leen Fatimatu bintu Rasul doomi Yonent bi la mooy taawam sëñ Tuubaa da roy tuddee taawu sëñ Tuubaa bu sëñ Tuubaa jur moo la mag 1878 la gën a yàgg soxna Faat Dia Mbàkke Kajoor maam Mor Faat Dia baax fii la ñëw fii ci bustaan Jaw am nañu ko fi xam ci wetu kaw la bustaanu jox fanan fangan ngeen deglu bu baax taxawu sëñ touba soxna fan ko fanan fangan fi mu fanan kamilam rek bu la bu nopi kamil bay la di jàll ba fajar mu xey suba kër gi di ko gane lay defar café gi mu jikki-jikki dal ni gox bi amu ku tuddu cheikh ndjay nek ab reppukat mom soxna borom kër gi ni ko cheikh ndjay reppukat du fii de waaye am na Seex Njaay muy rëbb mu ñu xam te ginnaaw dëkk bële suñu ginnaaw mu ne waaw moom lañ ma wax suñ ma ko mënee woowal na ñëw wuyu ngi dem ni Seex Njaay doomi Sëriñ Tuubaa la soxla mooy taawam soxna Faatu jëpp leen Mbàkke mu ne doomi Sëriñ Tuubaa wooma man waaye yow wax de Seex Njaay ab rëbb ah man naa wu gisee bi mu ñëwee ni yunn ci kees gi soxna si ne ko waaw kay maa woolu woon démb damaa nelawul dara sama jaamu yàlla yépp de dee ma jur ndax mala yi ci gox bii yépp di ay euh, njaa yàlla ñoo fi ñëw di ma laaxal sa mbir mais da leen di fekk ci biiru teen bi ñuy naane bu ñu maree di leen fital soo leen mënta bañ a fital nga bàyyi ba nu génn ci teen bi ndax fa la ñuy naane loolu day na metti bañ a laaxal ma ko dem ma ne war naa la ko àgg Cheikh Ndiaye Mbacke bàyyi naa la gis na ci la ci la bàyyi def bustaan jaw ca wetu kaw alhamdulilah soxna Faat Ja moom mooy taawu sëñ Tuuba bu moom moom la sëñ Tuuba tudde soxna Faatumata bintu Rasuul mi jur Ousseynou Assane mi Seydina Aliou Sow bi Batool doon denc lu ci indi Batool mooy ko set wicc daawul gis mbaaxu jigéen ñi yi jigéen ñi gis weeru dee yàlla da ko war maam du koy gis ñu tudde ko Batool ku set wicc Fatima waaw kooku mooy doomi Rasulullah sura faaw yi ngay dégg yépp moom la ñu sotoo ba ci sëñ Tuuba kon soxna su baax a ngoom soriwul maam jaaw soriwul leen bi ñu jeex yëpp maam jaaraa ngi fii yéen ñi woote association bi am ngeen doom yoo xam tolloo nañu moom at 33 ans la dund te maam jaara li tur bii rëy rëy fanweeri at ak ñett dépassé wu 33 ans 1833 la gane àdduna ci Mbusoobe Jolof génn àdduna 1866 ci Poroxaan ñu denc ñaata fanweeri at ak ñett mu liggéey loo xam ne tey jigéen a nga fay baaxe baaxi moo xam ni mënee su ko misaal ñaata jigéen ñu ko tudde ñu wattu alxuraan mokkal téere bi bind ko ci seen loxo beqi ko tari ko rafetal waxi borom bi boole ci mën toggi jigéen ak mbiri jigéen di ñaw di wal di jaay ay mboq ak lu ne dafa lañ leen formé ñooñu bu ko société bi bari la woon lépp baax tey ba jigéen ñi mee futti boppam jigéen foto ko ci internet bàyyi ko ci dama war fee des àdduna tukki na jigéen ak ni ko yàlla cërale ah nga xam ni démb daaw moo gisul jigéen góor sax bu daan bëgg jigéen di ko labat ci ëtt bi lay toog ñu teg basang teg attaaya jënd mbiskit ñàpp toog ji la xool dugg néeg amul waaw jigéen day futti bu foto boppam dugal ko ci whatsapp wala Instagram wala internet ñepp ni ko Big bag yi ñu da kat da ci boole ñak jom la gemu gennat faale wu lañ ko wala a problème amna na kon dégguñu diine lolu moy problème Sénégal wala bo ñu dégg diine top seen bakkan def lu leen neex ah xoolal maam Jaara mi nga xam seen exemple la déglul li sëñ Bachir wax ci moom Cheikh Mamadou Bachir dani wa jaddatuna maam Mariama Bousso maam jaara lay wax de jaaraama maam jaara ku am jaaraama yow yaa ko ndax sa doom a am jaaraama jaaraama maam jaara ku am jaaraama yow yaa yow yaa ko waral na sa dooma jommal jinne te jikko yi may bitalim amoo leen jigéen ñu bon yow ñoo ko yoroon yoroo leen maam jaara daawula jaw maam jaara daawula dee doo jayu doo jaare ko dee di dee yaa subu yoonu jannatul ayimo ku la rayul yow def jaanama jiimu sara gi tax naa ba ragal na yàlla rabe rabe njaroto taa xam nga yilla réeroo réeroo réeroo nee naa la daali dooram yi doo raa ambaaje bu soo daali amoo kañaan mam jaara amoo kañaan bore di woon am daali daawut a kekkontoo kẹtọ́jọ́tọ́ kì í duwaale. déglu baax. jërëjëf baax ndax dama ñëw laal na soxna Diarra. waaw ndeysaan. di ko liggéeyal. macha di ko jërëjëf. yàlla dogal ñu def ñaari daayira yoo xam ne suñu kaw yi la tane ñu di ko liggéey. mais sama soppe waa ji mu jigéen ñi sax ñu ñëw sama waaw mooy ñaar wax baax lu ko wax dëgg yàlla yàlla fay jërëjëf yàlla yàlla fay. dañoo defal portrait Maam Jaara mani Cheikh Mouhamadul Bachir bàyyi sëñ Mountakha mii daf noo defal portrait Maam Jaara yéen xool lii ba xam yéen a ngi jigéen ñu takku bëgg a xam seen islam ak seen société nu ñuy doxee rek bu ñu royee ci moom duñ juum xool leen nag lii mu ko waxal ndax yéen a ngi ciy su ngeen ci nekkee ngeen dolli ko mu gën a dëgër waaleykum su ngeen ci nekkul ngeen fexe cee nekk waaw dani aywa ñu teewlu dani waaw monsieur le maire mi ngi ziar jërëjëf monsieur le maire jërëjëf wakaanat jaddatuna Mariyaama Buso mu ni nekkoon na sunu maam ju jigéen ja di maam Jaara Buso saalihatan di ko yiiw a yiiw yàlla sax buy tagg ay yenantoom ak i ndaawam danaan ñu yiiw lañu woon ni maam Jaara ku yiiw jigéen day yiiw kon da ngeen ci bàyyi xel saalihatan waaye diini yatan nekkoon na ku am diine nekkoon na ku am diine ku am diine mooy kan koo xam ni julli du ko faat waxuma nag jigéen joo xam ni bu weeri koor jotee ci lay julli bu weeru koor jotul muy faat ay wax kooku waxuñu jërëjëf waaw maa la gën a sopp maa la gën a sopp dëgg la jërëjëf ndeysaan jërëjëf waaw amin barke rasulullah amin amin ñu bokk amin jërëjëf yàlla yàlla fekk mu ni jigéen ju yiiw la woon te am diine kon yéen jigéen ñi ku ci amul diine fexe koo am ku ko ci amoon nga fexe mu gën a dëgër ndax maam jaaram mii nga xam ne royukaay ne kat daa amul diine moom am diine mooy lan di woor di julli di wax ci suuf topp sa borom kër di wax lu baax di jëf lu baax toog ci sa kër doo dox doo taxawaal doo jëw doo gaarwaale doo tonto mën a muñ yooyu yëpp dafa gëm boo am diine mooy am ni diine yàlla en fii fatan fegu fegu mooy lan kenn du jaar ci yow di yebe diine ci yow te bari nag ay jigéen ñoo xam yëpp nañu diine ngeen ñoom ci seen colin ci seen waxin ci seen comportement kon da fegu nee na en fii fatan kasirata salaat ni maam jaar ku bëri woon lu muy julli la bu ñu waxee bëri julli nag waxuñu bàyyi ba julli farata nga julli ko mooy di naafile farata moom waxaale ñu julli du wàcc kenn ba keroog ngay dugg ci bàmmeel da ngay julli ku feebar am na julli koo xam ni dafa paralysé am na julli du wàcc kenn tax kon ku bari julli la woon li mu ci jublu mooy lan naafile yi waaye farata taxut a wax mu ni wa saddaxa bari woon tam lool lu muy saraxe dee leen saraxe jigéen ju baax day togg lu bari di ci buntu kër yi di di joxe di joxe ku xif bu ñëwé sa kër añ waye siis bay bëgga a kan ku ñëw ngay fermé sa kanam pour mu ñëw digeen day joxe day xër day yaatu mën a joxe ñam xam teraanga di ko may wa tax mu ni kasira kasirata sadda wa saw bi bari lu muy wor de len def woru yeneen ci yàlla daawda alayhi salam dañ tuba ngoy jàngale ci masalibul jinan ena woru wooru moy ñetti fan ci wër wi weer wu jot boo ci weer wooree ñetti fan day mel ni woor nga sa giiru dund ndax yàlla boo defee benn ci lu baax mu fay la ko fukk weer wi di 30 boo defee 3 jours sur 30 kon am nga 30 sur 30 mu ne dañ la ko fay gis ñu bay woor lu muy woor wa kaanat aydan turabbi awlaadaha ala diini wal muru aw dahaar maam jaara nekkoon na di yar njabootam ci diine da ngeen yar seen njaboot ci diine waaye sa doom nga boyal ko rek am ko si yow nitul xamaloo ko diineem jàngul alxuraan jàngul diineem damay xool fan yi émission bi ñuy def ci télé bi ay kilifa yu mag ci réew yor ay ndoom ba tànk dem ba am juróom benn fi gàtt fii mënuñoo wax faati am seen ah musiba la te mu wóoral leen nga dem ci bàmmeel te yow julli pour mu jaar yoon faaw faatee moom mënut a ñàkk te am nañu mënul faatee fi mi ko dari mu baax ah? lu ne la ñuy wax ah am dalalaay baareka doon la ñuy tari faat bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin eh waay sax fàtte ju la neex teg te li ngay amee xaalis lépp nga mën ah li lay may ay garab lépp nga ciy soxla te diine yàlla ci sa yoon nekku te boo dee bëgg nu jullee la ñaanal la loolu jaaxaar na de kon soxna si moom bari woon na lool lu muy yar ay doomam ci diine ak ci laab fi ne bari na mag mu mënta sangu faral na bari na mënta jàpp jàpp mu jaar yoon bari te rus na koo laaj ndax fi mu toll ci ay bijaaw ah te kon doo ci rus parce que diineem la day dem ci bàmmeel te mënatuñu seen yoon nekkul ci yooyu toppatoo ñu ko sax te boo laabul sa julli du baax ah sëñ Tuubaa na. inna salaata la tatimu abada illa biha wujubuha xad an bada julli du baax mukk feeg laab ji ko baax ndox mu laab dafa am nooy jàppoo mu tege ci yoon am nooy sangoo farataal loolu xamatuñ kon maam jaara moom yaroon na ci nee ay doom ak li am solo alal alal muroo a muroo am mooy lan mbañ mus rikk waay am na jataay yoo xam ne nit ku am jom am dignité du fa taxaw Mata mat a bàyyi xel nitu diine am na foofu waru faa taxaw bu mu jurus kenn bañ taxaw loo ko fa ñuy caaxaane nga mën faa dem wala gi nga ñëwaat ci jàkka yow nga mu dara fi mu ñu bari ñi conférence ci weeru koor bu concert musique ayee ñoo fay battre ay millions ah ñoo fay battre ay millions da ngaa mos a gis benn ustaas bu wax dëgg ba nga gis ko battre million ci taal ba tey gis gis benn xale jàngkat bu ñu ko fa defal ma ne ah lii de baax na yàlla jëm kanam waaye musicien kay mën nañ koo may oto yu dul jeex jox ko ay billet màkka léeg-léeg sa Sénégal comédien la ñu may billet màkka xamul dara ci li muy aje xamul ko sax waaye dañ koy may billet màkka wala musicien loo koy joxe billet màkka lu mu ca xam dara kon nañu am lu ñuy rus la wax mu ne nag maam jaara wa kasiran maa tax kii alayhim xikaayaati saalihin bari na loolu maam jaara daan toog ak sëñ Tuubaa ak maam Mor Jaara ay doomam di leen fàttali ni nitu yàlla yi doon dundee pour ñu ci mu ni sëñ Tuubaa moo nettali ci téeréem wax ni man de li tax ma teel a tàmm naa guddi sama wéytu mu jigéen moo ma wax dafa am bis mu ne ko Ahmadu mu ne ko Mbàkke mu ni ko min tax bi saalihiin xiyaamu lay bokk na ci jikkoy gaa yu baaxee taxaw guddi dee taxaw guddi sëñ Tuubaa nee na bi may taxaw guddi dama ko ba saar yi ma dégg ci sama wéy juru jigéen mu koy wax ma mokkal ko moom laay taxaw di ko jullee tax demaguma daal gis ngeen sa njaboot da nga koy teel a yar ci lu baax waaye ñun xale boo am jardin d'enfant rek waaw yóbbu fale rek préscolaire mu jàng waaw daara ci diine ma xamul ba muy magum jëm soo deewee du la ñaanal sa yaroo ko ci diine soo deewee du la ñaanal te fi ne ña ngay wuti ñu lay wàcceel kaam ñu ci bari dañ koy parax paraxee gaay yi faale ñu la de xaalis dañuy wut rek ah alxuraan ni mu toll ñu séddale jub ci bi nga gis ko ñu naan dara dara dara para def dañ lay parax xey dem boo amee doom ju baax nag yar ko ci diine mu lay ñaanal ndax yarantu bi moo ni isa maata adama in qata amaluhu ila min salaas sadaqatun jariya aw kitabun yuntafa'u bihi aw waladun saalih yad'u ko de ñak nga lépp ngay dal ah lépp juga kebe bi mu ligue 1984 ak milliard seigne Abdul Xaadir ko mo seigne ko wax bi mu genné dañoo teural juga kebe teural teural ben dof boo xamni ni marché Ocass laan doxé ak yaramu ne ñoom ñaar bokkandoo mel ben genn aduna ko ne perkaale la wéttali ñu teural leen seigne Abdul Xaadir génn ci ndigal seigne touba seigne Abdul Xaadir jullee ne jalan ci mboro bi dañ asalaamaaleykum ni ñaar ji bu ci jóge ñu ne ko Mbàkke kii la mu ne xàmmee naa ko yéen laay fàttali àdduna kooku rek ay mujj te gis nga bu ñu xamoon dara du ñu ñëwee yenn milliards yi jëm moo ku amee milliard dafa dox fi mu ne dox la man damaa bare xaritu milliardaire man lii di wax dara man Sénégal bu dee 100 milliardaire 90 ñi sama xarit la ku ma ci woo téléphone direct nga tëj sama xarit la xam naa leen gen wàll gi dañu dof xam nga lu leen dof loo parce que yow talatoo say doom da ngay naan garab xaalis baaxul ko ñu lay jaay rek lay wër yaa fi nekk kenn du la wax dëgg say doom doo leen gis dañuy dem di fay ci école léeg-léeg am 9 mois ñu ne sa doom sànga ma yi tey yaa ngi Dubaay lépp boo tëddee guddi nit ñi nelaw doo nelaw yaa ñu boo góorgóorlu doo am benn toyaaba. yar baaxul yow bu paree rek nga soxla. réew mi bu fi xaalis bare rek a soog kon def ci lu baax gaaw ndax day jeex rek li nga fi bàyyi boo bàyyee ay doom yoo yarul ci islaam ëllëg xam nga dañuy defar yowaa yóbbu ko di ko baaleeg may ay mbëri làmb ñu la ciy dóor ci bànn tel ko tabax ci gaaw man daal defal li Ablaye Dia di def bu sëli ko waaw man daal Ablaye Dia léeg-léeg sax toog at bi mu bi ñu mu jéggi te moromoo kër gële ma tabax Dakar it moo ma may terrain ku baax gis naa lii muy defal alxuraan yéen ñëpp gis ngeen koor grand théâtre lay jël fa mu gën a cher fay ci bari 6 millions moo lay jox grand théâtre su ko wootee bu daaw bi def na ci budget do dépassé 400 millions de frais pour alxuraan ñiy gagné récité alxuraan 20 millions 15 yooyu leen di may. ustaas yi leen jàngal mu jox leen biyeeyu màkka tabaxal na daara ju mag alxuraan am na fii 245 parcelles ci Dakar wetu Tivaouane Pël mu dem ak ñi ko habité woon illégalement ci yoon ba moom ko ni maa ko moom dama bëggoon a jël sama droit joxaat nañ ko addee rasulullah loolu yombul ne loolu ay milliards la ñooñu laa naw daal def ko ci lu baax ndax yàlla nee na wa man aarat an dikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsuruhu yawmal qiyamati képp ku ma ci mayi milliard nga def deew wan ginnaaw lislaam doo dimbali ñooñu diine yalla ya, ne dama la wax dara waye boo dekkee dama lay sel ma xalo moko wax mu ngi sóoru ta a jàng ne su nga nan yalla lu tax ma ñew ñëw fii silmaxa te àdduna jàkkaar la won mo la daga du moy woon sama mbir gitu. jappoon ustaas yi ay ser waaw lañu japp fi ne ba serigne daara ay kaw ko lañu japp jàpp ci ñiy sappe ba yem ñoom ak pour seulement waaye wax waaye football rek bu dul football du caaxaan du politique seen yoon ne jàppale télé bi mu def rek dañu waajal suñu bopp maam jaara daa yaroon ay doomam ci njub moo tax tey sëñ Tuubaa mel ni mu mel exemple la ci yéen xoolal am na soxna suñu wax soxna Aminata Lo moo jur sëñ Modou Moustapha daawu sëñ Tuubaa bu góor ak sëñ Baara wéy juru sëñ Sidi Mokhtar mbaa xamoon ngeen ni njëkkewul kër sëñ Tuubaa mu ngi doon ci góor gu baax gu ñuy wax maam Moor ma Jeng Fallou moo nekkoon borom kër booba tam jamono sëñ Tuubaa daa kóllëre maam Moor ma Jeng Fallou ci nii léeg-léeg sëñ Tuubaa jub dem nemmeeku ko ziyaara bis nag sëñ Tuubaa ñëw di nuyu si maam Moor ma Jeng Fallou fekk boobu jamono Maamoor Madieng Fallou mu ngi yor soxna Aminata comme soxna muy soxnaam su ndaw ci kër bi ma sëñ bi ñëwee def fa ñaari fan yére yi sëñ bi soloon fagg xaw a tilim loolu la wax fagg bëggoon ñu fóotaat sëñ bi daal di koy wax sëñ bi ni ko yére yi bu ñu ko mënoon a toppatoo ku gën a féex ci njaboot la ko bala may jël Maamoor Madieng Fallou ni ko xaaral ma war ko sama soxna ñëw ci biir ni Cheikh Mat Bamba moo ñëw ci kër yére yi moo ko moom daa bëggoon ku ko toppatoo ku ne joxe ngant naan ah man de xam naa tool ba ma jëm ak liggéey beeg nanga soxna Aminata Lo ni man de ku ma ko jox ma toppatoo ko ndax turam yàgg naa dégg mbaax mu ne ko kaay toppatoo booba jamono sump la ñuy fóoti sump saa bu am mu jël yére yi sëñ bi xooj ko ci ndox ba mu yàppi daa yi ci taxoon yi muy taggee yaram bi yëpp wa yàpp mu ni man daal sëñ Tuubaa mi ma dégg ko turam ni mu mel jomb naa lu jógee ci ay yére ma koy ci ndeet kii daal xaaral ma barkeel ci ndox gis nga ndox bi ma xooj muy yére sëñ Tuubaa ñaari bouteille ndox la ko def ko ci ron lalam di naan di baax fóot ko ba mu àgg mu wuti daakaande daakaande fëgg ko lem ko ba mu jekk mu ñëw ba ci borom këram ndax booba góor ak jigéen bi ñu gisan mu jox ko sangam ni ko mën nga koo jox sa Cheikh Mor ma jël indil ko sëñ bi xool ko rek daal di muuñ ana ne ko sama soxna su ndaw si ñuy wax soxna Aminata Lo Tafsir Maxtar Binta Lo bu ñoom rek mooy baayam moo ko doon topp tool ak nga ñaanal sëñ bi ne ko demal nga laaj ko lu mu bëgg sunu borom nee na bëgg na lu mu bëgg yàlla dina ko defal bi saa si demal nga mu ñëw ni ko ah am nga taw fii xa sëñ bu mag bi nee na loo bëgg ci lii nga ko doon topp tool yàlla may na bee boo ko wax li nga bëgg mu ne ko boo ren laa def sa kër juróomi at te mënuma fee am leer awma fi doom damaa taxaw nee ko na ma ñaanal ma am fi doom te nee ko ku ma fi am na mbaaxe ni moom ndax mbaaxam yàgg naa ko dégg mu ñëwaat ci ko wax na de la fi am juróomi wax na dëgg te amu fi doom nee na mbàkke nga ko doom te am na baaxe ni yow mu ni ko mel ni man fàll nee ko mel ni man fàll waaye nag dinaa ko ñaanal mu am doom yu ñëpp dégg ci lislaam mu daal dem wax ko ngi dem ba ca déwén sa sàgg boobu ko yoroon génnaal ñu dem ay at sëñ Tuubaa di samp këram suñuy nopp waxtaan ci ak mbokkam mu ñuy wax soxna benn Guyo Jóob ak sëñ Mbàkke Kajoor moo ko yoroon soxna benn mu ne ko dee doomi Tafsir Maxtaar Binta Lo ca ñoom rek nekkoon na ca kër ma jeng doon fa liggéeyal yàlla te boobaak léegi gisaatuñ ko fenn tam mbàkke ko ko amoon dina len defal li nga bëgg ci l'islam man la jappal ci liggéey bi nga kan defal yalla bi sëñ bi da mel ni mas na top ros ba yéen ko na ko nañ ko topp tooguñu ñu top toogu mu ñëw kër sëñ Tuuba dir bu gatt la fa def yalla ya may ko fa ñaari do muy señ modou mustapha ak señ Baara benn bi señ bi wo ko mu ñew mu ne ko sama ñaari doom yi ma am ak yow ndax xam nga loola ko may mu ni bëgg na ko xam mu ne ko da nga yaakaaru ni yëguma ko ñaari bouteille ndox nga defoon sa rol lal diko naan way ñom ñaar gis ngeen ni ñu mel sëñ Modou Moustapha mu àggale lépp sëñ Touba ginnaaw sëñ Baara mooy borom guy mind moo jur sëñ Sidi Mokhtar mi nekkoon septième xalifa sëñ Touba kon baax a ngoog jigéen day baax ñu góorgóorlu jigéen day baax téere bii ma tiim muy wasiyatu Penda Diop sëñ Touba ko bind xam nga léegi xis moom loo wax ñu ne est-ce ji day waaye bindum sëñ Touba moom kenn mënu ko ran lii loxoom kim ko bind jëmee ko ci moom tànta la taxawee ci moom wéy soxna Penda Buyo Jóob la tudd sama mbokk la man nii di wax ca kook si wax daan di ko soxna Penda Buyo Jóob bàyyi taxu sëñ Tuubaa ko yoroon bàyyi tax mooy ku bokk ak sa baay sëñ Mbàkke Kajoor mi ko yoroon ak Maam Mor Anta Sali mi jur sëñ Tuubaa ñoo bokk benn baay di Maam Balla soxna seeni ko Mbàkke comme maay sa premier taalibe bu jigéen moo njëkk a gëm sëñ Tuubaa ci jigéen te tàntaam la damaa bëggoon nga defal ma dénkaane sama islam lu may dundee ci société sëñ bi ne ma naa la bindal léegi ay baax dénk la ko dénkaane baa ngi xam nga lu ko sëriñ bi wax dane ko maa lay dénk yow sama soxnas baay tax sama soxnas baay tax moo tax sëñ Tuubaa ni bismillahi rahmaani rahim qaala taalibullahi wa rasul nee ci wax li sëñ Touba mooy koo xam ni day sàkku ci yàlla borom ak yenantoom fii rek la sëñ Touba nekk taalibe buy sàkku ci yàlla mi ko sàkk ak yenant bi muy liggéey mooy wax araaji min huma rida wal xabul moom sëñ Touba wax mu ngi yaakaar nanguk ñaan ak ngërëm ci yàlla mi ko sàkk ak yenant bi tax mu sàkko mu ni yuus yi dafay dénk fii day conseillé muridatahu muridam bu jigéen zawjata am mi di soxnas bàyyi taxam Penda Diop tudd Penda Diop xafarallahu lana wa laha nu yàlla jéggal te jéggal ko wa maha anna wa anha te yàlla effacel bu effacel ko kulla zanbin wa boobu bépp njuumte ak bépp bàkkaar door ni ko nag alayki bi sabri soxna si maa ngi lay dénk na nga muñ jigéen bu mënta muñ bokkatul ci jigéenu jullit biir day muñ bokk te lii xew nag koo ci yor ba mu yàgg nga commencé néew doole mu weer la yuux lay def ci mbedd dara defoo ko sa kër fàtte na lépp kon loolu du muñ alayki bi sabri donc alayka de jigéen lay wax donc alayki bi sabri maa ngi lay dénk ci muñ wa taqwa rabbiki ak ci ragal yàlla sa borom mi la sàkk fii sirri wal jëxëy ci lu nëbb ak lu feeñ ndax am na jigéen ñoo xam ni la ñuy wan seen jëkkër jëkkër ja rek nga koy def waaye mbedd mën na ko bañ a xam amee ay gan ba gan yi ñëw toog installé bu commencé muur tànk ndox sukk ni jaay na nga dem kër ñaar gën ci kër gi fekk day wane wu waaye bu gan yi ñibbi mu sol sonalaat dëkk nga xam ne soo woon sa xarit ni ko soxna seema la xarit ni non da soxna si am na noonu loolu mun kon kooku defu ko ci lu nëbboo ci lu feeñ la ngay muñee di ko toppee na nekk lu nëbb ak lu feeñ nee na soo ko defee fa yàq bira la kii yàlla dina muni ni ala tawbati wa bil ittihaadi bil ittihaadi mais maa ngi lay denk nga taqo ak tu dee leen tuub astaghfirullah for na lool de ko def ko 18 3h du matin ku ko ci man jappul ba sel nga def astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah boko boko mané 1947 fois boko legi nga léegi nga dem ci kaw yàlla dina la jéggal say bàkkaar te di nga muus di nga wërsëg woo dunde du jar ngay sonal kenn dee leen koy def astafirullah dee leen tuub bàkkaar sew na te mën nga koo bañ a dañuy tuub jaam rek lañ te yàlla day jéggale te am yenn ustaas xam gëm dara parce que sawara sawara rek sawara rek yàlla daa bëri yërmande yàllaa wax ci bi ci قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان لا يغفر الذنوب جميعا لوتاخ انه هو الغفور الرحيم انه هو الغفور الرحيم من نكو كون يالا ني يانت بي كي سورتو زما وخال جام ني نيلين بو تي كين باريتي اي باكار با جاب ني دوكو جيغل واخ يالا ني باكار ييب لا جيغل لا واخ ليب جميعا ليب ني كو لوتاخ مولي من يالا man naa jéggal ku ma neex wala ñenn ñi boo dégloo dootoo tuub dee leen tuub tuub guddi ak bëccëg la yonent bi wax mu ni doom yi ala tawbati bi jihaad wala tammi wala tammi lii li siwaa rasaad bul jeng yow jigéen ji jëm ci ludul njub ludul njub boo ci demee ëllëg di nga di bari na koy dénk am natt mu luubal ko bari na ko jité dara xey kepp kess ga lolou lepp ñak njub la kon njub rek mu ni duumi alal xumu li wa tasaturi na nga sax ci jim jim moy bul bari dox bari wax jigéen du mel noonu ci suuf lay wax kenn du koy gis ah ki fi la dekk ci koñ ki defo de di baxal wax waye xana du diw xaaral leg mu rombo lolou baaxul du melaw jigéen ju baax muniko te ngay muru lii boo ko waxee tey ñu lay bëgg a rey mais jigéen murit day muur te yàlla waaw yàlla moo ko santaane jullit day muur mais murit ci murit la tam daa war a muur ndax bi ko sëñ Tuubaay santaane fekk na yàlla santaane ko waaye lii la wax sax déel muur sax bopp sutural sa yam boo demee ci téere sëñ Tuubaa bu mu bind ci grammaire arabe téere baa ngi tudd saadatu tulaab nga xam ne grammaire pure la ciy développé foofa dafa jël benn exemple ni yow Zaynab sa diine du wér mukk fekk muuroo nga bëgg ni man dara léeg-léeg sax nga dugg ci kër gis sëriñ boo xam soxla sa du muuru ko ya, waaw lu leen neex lañuy te delloo leen ci compte sëñ Tuubaa dee jigéenu taalibe day muur mu ni laa tanzuri ma dumti hayyatan ila ghayri allati tahliluhu xarin jala feeg yaa ngi dund la dem mukk ci lu dul lu wax lu dul lu dagan lu dul lu yell wectani bil xiiba boobu yéene ko moom yaatu na lool mu ne soxna si nanga moytandiku jëw loo ko dara jaral jëw jigéen a mën a jëw jigéen a mën a jëw man léeg-léeg ma romb sax nit di ma jëw te àggaguma wallaay azim léeg-léeg ma toog ci oto bi rek nit si af laa jëw bisi commencé naa wax ca man kat avant maa ngi dégg muy wax ci ginnaaw ma ni cay yàlla na la muy wax dara la jaxam waaw kon nañu moytandiku jëw jigéen du jëw góor du jëw jullit du jëw waaw rawatina ci jigéen lu ñu tàmm def la sëñ Tuubaa bi muy jóge dafa am bis mu toog taalibe yi wër ko fi mu toog xam ni sëñ Tuubaa ni mu dëddoo àdduna am ku ñëw ni asalaamu aleykum sëñ Tuubaa ni ko waa aleykum salaam mun dama ànd ak sama benn xaritu saalum saalum ñu ñëw ba fii réeroo ma doon laaj ndax jaarul fii avant ko sëñ Tuubaay tontu taalibe bu sob bu mel ni man ni ko waa ji daa gàtt te ñuul ni waaw mu ne ko nii la jaar li mu ko gis nii la jaar sëñ Tuubaa ne ko yow bu tudd ñuulaayu jàmbur ak gàttaayu jàmbur toppaale su demee ba gis waxayam jooju ko jéggalu ñuulaayam ak su la ko jéggalu jaru ngay ñëwaat doo am ngërëmu yàlla suma kër kii la sëñ nekkoon romb na ñuy mu ne nañ nañ kas fi ñu toogoon remplacer suuf si te nañ fa taal ñaar fukki sondeel ak juróom-ñett wàcc fa 28 cas bi tuubal yàlla jëw ji def ah léegi jëw rek sëriñ si sax am na ku ñëw ci alaaji Malick radiyallahu anhu toog ci moom di jëw sëñ Tuubaa déglu daa ñëw ci alaaji Malick nuyu ko ni ko si Malick bi laa yaa baax te ragal yàlla Seydi Alaaji Malick di teg mu ne ko waaye sa mbokk moom ci njaari dañ bi Seydi Alaaji Malick di ko hmm. mu ne ko ah moom kat dëddu àddunaam gi day bëgg a metti nanguwul sax tubaab di nuyoo ñoom ah mu maslaa sax nag waaye du nuyoo di ko waaw ah, moom day alxuraan te yàlla moo ne woon innamal musrikuuna najasun ñuy bokkaale yàlla ay sobe lañu te moom sobe du ko laal ndax alxuraan képp la juy dox loolu moo tax mu doxale noonu waaw moom day jëfe alxuraan noonu rek la a def ñu kenn ñaari fan ma dem jaare ñëw toog sëñ Tuubaa ni ko hmm. ah, yi dugg ba ci biir këram di toog foofu sëñ Tuubaa ni day jëfe alxuraan daa dégg alxuraan dégginu alquran tax ma def lolu ndax yalla ya mo ne wala khat karamna bani adam dama teral do mo adam do tubaab do mo adam mu leen di teral ngir alquran di wax rek naa dégg alxuraan ci ko jëfe ba bax oh, ay dal ak nitu fu mi jëwee waaw legi nak fi ku bi buntu beug a kenn nga commencé ko bi buntu ah ala sa waya day doy de wala sax legi ñolay pousser nga jëw da ngay taw ñu ko as sa waya gën nga ko gis ci lu mu nekk temps yi nga ni ah dañ léegi ku moytuwul di nga dugg ndax réseaux sociaux yaa ngi yàq Sénégal te nag surtout président war na ci jël ay matuwaay war na ci jël ay matuwaay parce que moom tey bu ko nit attaqué woon mën naa fexe ba ñu tëj kon war na noo góorgóorlu war naa suñu kilifa ay xale yu amagul ñeent fukki at di saaga nday na mu gën ay kilifa dugal ko ci internet bi ay vidéo di tuumaali nit di sosante xam nga ñun dañoo tardé nous sommes en retard moo tax réew faaw liggéey bàyyi emploi lépp am jot rek gis nga bu la yàlla nattoo ba nga dund tuuti Amérique di nga xam li tax ñu raw nit ñi amuñu jot li nga américain du la romb ci mbedd mi sax naan la ay good morning déedéet morning good sax nay na ko waxalee good xam nga good morning mooy bonjour mais du la sax good morning da romb ne aay wala mu ne morning pare na nga taxaw di làkk di daal du la xool ñu ngi ci seeni saxaar yi di waaxooy dem liggéey guddi liggéey bëccëg twenty four hours vingt quatre heures la ñuy liggéey am ñu temps ndax lost time is never found again la am américain yi wax temps boo yàq doo ko jot ndegam ñoom ñooy wax loolu ñun ñi bëgg am àdduna bu baax bëgg am tam ëllëg fële li ñu yarantu bi dig bëgg a tëddee nelaw ak yàq der rek ak nekk internet bi di fo duñu jang alquran duñu jang qasida duñu salatu ala nabi duñu istighfar, duñu wax wiim suba ba ngoon yàqante ci internet bi te jewon man temps yi dama jaaxle ci senegal wéru ko ñu naan ñu aji saar ak Ousmane Sonko rek wéru ko mais loolu war nañ ko sétat wéru ko laa wax de nga xamni li ci yalla digge ci tayaba yow bu la waxee yoy nga ni dama wor ko ma ko dama wor loo xam ne seen vie privée la ñoo ko seet sa yoon new ci moom ci loxol yoon sa yoon new ca loolu waaye def nañ ko léegi ordre du jour fait divers rek Sénégal boo xëy saa waaye dégg nga li mu ko wax dégg nga audio yi génn dégg nga vidéo bi ñoom te bu tardé mooy def loolu temps bii ñu am baaxul nit du amee noonu temps wallaahi nit du amee noonu temps am jot lu nekk nga nekk sa temps bi nga yàqu te lu ne yàlla da koy laaj li nga jeexaloon sa wax te yonent bi ne moytu leen mën nga yëngu ci mbir fekk sa dee ci la nekk Seydina Ali moom da koo simplal nee na marché bële am na rouleau rouleau tissu percal bu ñu fa dagg tay tay tay mu war a tolloo cinquante mètres wala cent mètres balaa rouleau baa jeex sa wàllu bi ngay demee ci bàmmeel la nga ca te yaa ngi wér di ba di balballu ci mbedd mi yëkkati dënn te sa wàll la nga ca percal ba ñu dagg tay lii ma ta bàyyi xel la de ku bàyyi loolu xel di nga defar sa jikko jigéen ñi góorgóorlu leen lii sëñ Tuubaa tàntaam la koy dénk wéy juram la koo xam ni bàyyi taxama ko dénk moom lay dénk li wax ju wér mu ne ko bul jëw yenant bi toog na Aïcha mi ngeen xam moom la gën a bëgg ci ay soxna Aïcha doomi Abu Bakar toog ci wetam jigéen romb dem leen ci téere sëñ Tuubaa bu ñuy wax al jëw feru nafis di ngeen ko fa fekk fekk la ciy jàngale jurisprudence ni ñuy jullee ak ni ñuy wooree ni ñuy defee mbiru ibaadaat yi la fay jàngale téere boobu sëñ bi def ci wax ni yarant bi toog na Aïcha toog ci wetam jigéen romb di dem sol sol bu rafet mbicci kaala yi mooy yii nii di ci seen kol yi xaw a gudd Aïcha ni soxna si colinam ci rafet na lool waaye mbicci kaala yi xaw a gudd nee na yarant bi xoj ko ni ko wàccul gaaw Aïcha wàccu benn lumbu yàpp rob ànd ak deret yeneen bi ñu ko lii bu reesoon sa biir kenn mënu laa tere tàbbi safara te yaa ngi ko naroon a amee ci soxna see nga jëw wax ni kaalaam gi xaw naa gudd soxna si yeneen bi lii léegi dañ lay tuumaan sax lu dul dëgg fa créé lépp de toute doomu aadama yàq ko jaral leen fayante xaalis ak yëpp te yàq ni après nga gañe ci lan muy dugg sa compte ngay yàq doomu aadama yàlla teral jaaroon nga ne ko dama koy teddati par force yàlla may jaamam nga ne dama koy xeex na yàqule diw bu ma jiitu liggéey yënte diw na jóge ci bureau bi diw na dof doo ci gën defaraat jikko yi Sénégal am na ko ma ko waxoon defe naa benn at la Tabaski jub si ñu taxaw di séentu oto booba temps nag mënuñoo am oto day sax booba temps mënu maa war ci ñu taxaw di séentu oto bu ñu fay pour dem Dakar li ñuy war a fay 200 waa ji ñëw ni deux live lay fay ah bi doo xool yàlla muy deux mille am na suba la bu di ma xool bu ma grand ma ko bu ma Sénégal mooy Israël Israël ma ne ko bu ma yaram ci yëpp fa lañ tëdd presque mais ñoo gën bon jikko Sénégal li mu am ci wàllu ñu koy coow ñoo gën wax na dama imaginer muy def ndax yi mu am li ñuy bari bari jëriñ ñu nit sos dañ la ta melu mi nit ñi am moy so yoree ñu ñew so yoree ñu ñew ko yor xaalis secret kër dina bari gaaw yàlla maa ngi toog benn monsieur le maire nek mu woma ma di ma may ben terre ma rek ak sa waaye ma xol kër gi ga gi fess yalla man ma ne lii ci jàngee ko yor rek ñepp ñew kër ga gi fess del kon soy man ñëpp ay ñëw bala nga won ko xam ngay maire rek xëy ñu folle wala nga nek ci télé radio yi di liggéey. leneen ñu la ko defal pour nga tudd leen ci télé waaye boo folli koo ñu ne asa ah, waaye xewatul keneen a kon ku ku yor ñu ñëw ku ñàkk ñu daw ah, dina daanu de dafa ëppaloon nag bari woon ñëw ku jeexal ñu daw ku feebar ñu daw la nag feebar moom saa naa ko seete xam naa bu ñu xëy tàkke dañ seet ku dee ñu fàtte la léeg-léeg la ci xel dem rek oh lii mooy fàttali sama benn waaye ku baax la woon pare nañ ci la ñaan ku dee ñu fàttali xam nga kuy fàtte bàyyi mag ndayam ci ñaan la fàttali ko yéen te fi ne bari nañu fàtte seen bàyyi ci ñaan taluñu ko sax waxuma laa keneen kon ku dee ñu fàttali ku ñu bëgg a jaxasoo yow nga téye sa bopp ñu tuumaal réew bi kon metti na ngeen moytandi ko loolu jëw wax ju ñaaw yàqante sëñ bi mu ngi di ko dénk wéy bi wala day baax waa takabura ak rëy jigéen du rëy de ku ci tooñati sa jëkkër demal tuubal bari na sëy yu yàq looloo ko yàq rëy rek du ma ko tuubal sa jëkkër li nga ko def man tooñu ma ko en tout ma sëy dina yàq parce que jigéen dafay oyof wàcce boppam ñëw ni waaye ndi jaay maa ngi jéggalu jóob damaa juum rek daf laa gis sunu muy jur yëpp bu sunu bàyyi daan mos a ñëw tàng dañuy tuub jënd kuro ñëw maa ngi fàttali ko loolu sukk ni ko maa jur maa koy fàttaliku sama nday ji ma mu toggale sama baay fàtta caa teg kaani sama baay daa bëggoon kaani góor gi tàng jër te maa fàttaliku sama yaay bi mu sukkee ne ko maa ngi tuub dootul am mukk ci sama wala yooyu tey jariñ nañu ñun ñii dund parce que xam nañ ni am na lu cëri yoo xam ni suñu ndànk bi ndayee nu ko fàkk waaye tey génération bii jëm quatre jëm ay quatre-vingt-dix ah dina bari lu ci yàqu de waaw ah, parce que yar amatul teggin amatul. damay wax ne jigéen na man togg lu neex. te man di fóot yére yu weex. nga di ca am wax joo neex boo ko.